Pour suivre l'actualité en temps réel, abonnez-vous euh, euh, internationale. kilifa gu nekk ci biir dëkk bi di ziyaar goney Sëriñ Saalihu ñi nga xam ni ñoo amal bés bu tedd bi di ko amal at bu jot fii ci Pambal yàlla dogal mboolem édition yi fi jaar yépp ñëw nañ ci kàttanu buur bi tabaaraka wa fekke ko ànd ceeg Sëriñ Maxtaar Fay di leen présenté it sunu gan gu tedd gu nu àndal muy sëriñ Mouhamadul Fadilu lay mee nga xam ne moom la ñu àndal di sëtu sëriñ Mor Absalo ku wax sëñ Mor Absalo wax sëriñ Touba bokkoon ci mag ñi àndoon daan ànd ak sëriñ bi te yàgg ak moom lool te am ngërëmu sëriñ Touba kon mu mel nii tey delsi nan ci kàttan buur buur bi tabaaraka wa taala ànd ak sëriñ Maxtaar mi nga xam ni moo fas yéene waxtaan ci ku tedd ki sëriñ Tuuba ak yar bi nga xam ne nii daan na ko yar xale yi indi ci ubbi ci bunt bu bees bu am solo sëñ Maxtaar nag kiy waxtaan mën naa waxtaan di lu mu dégg di ci waxtaan waaye kii da koo dund da koo dund jàng ci daara yi sëriñ saalihu yi mokkal alxuraan jàng xeeti xam-xam yépp noonu la it sëriñ tu di sëriñ saalihu bi mu waxee nan ma jox gone yi nan jox nan ma jox ndaw ñi ma def ci ñoom li sëriñ Touba defoon ci mag ñi booba ba mu ko waxee sanc daara yi bokk na ca ña fa jiitu sëriñ Maxtaar Fay mii mu laaj ko yóbbu ko fa mu di fa jàngale xam-xam jaxasoog moom lu bari xam ci lu bari it ni mu doon yar xale yi ndax moo doon yar ci baatin waaye ci zahir ji ñiim ñoom ñi ñoo ci nekkoon di teete xale yi di leen yar kon lu mu ci wax rekk lu mu dund la waaye li gën a yéeme mooy xale yi nga xam ni ñoo nekk daayira bi muy gone Sëriñ Saalihu jamono yooyu sëriñ Saaliw laaj ndaw ñi sëñ Maxtaar mii dem jannatul ma'wa ne fa ñu jox ko njàngaleem xam-xam foofu mu di fa jàngale xam-xam boobu gone yi sëñ Saaliw yi jamono yooyu ñu ngi fii ci lël bi di jàng ñoom itam nga xam ne benn génération la ñoo danoo jamonoon bokk benn jamono bi ñii di jàng fii boobu la sëriñ saaliw laaj ndaw ñi fële ci xel ko nga gis loolu xikma bi ci ne dem na ba ñu tuddoo xale yi sëriñ saaliw gone sëriñ saaliw nga xam ne seen bëgg-bëgg ak seen lépp sëriñ saaliw la ñi ëpp ci daayira bi xàmme naa leen xam naa leen bu baax ñu ci ëpp jaar nañ ci kon loolu xikma la ci liggéey bii ngeen di liggéey kon yal na yàlla euh, dolli tawfeex sëñ Maxtaar incha kon kenn du leen ko présenté ndax jaar na fi jaaraat fi wax nañ leen kan te at mu jotit waxoon nañ ko daaw ne at mu jot li ñuy dolli ci lan doon wax rek mooy lu mu yokku day gën a yokku la ko sëriñ Saalihu dénkoon am ci yaakaar ci moom mu di ko doxal bis a seex Muhammadul Muntaqa ñëwee loole la ko dénk ba nii fu mu nekk sëñ Muntaqa moo ko fa teg ba nii ñu nekk nii fu mu nekk rek sëñ Muntaqa moo ko fa teg moo koy liggéeyloo kon duñ def lu dut bàyyi ko kàddu gi mu tàmbali waxtaan wi defe naa bu ci noppee liñ ci bëggoon lépp danañ ko ci gis ndax lu mu dund la kon seen Makhtar euh, kàddu gàngun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 di sant yàlla subhaanahu wa taala ci bis bii ngeen taxawal yàlla defal nu tawféex ngeen boole ñu ci ba nu jóge Touba ñëw ci di ñaan itam Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla yàggal ko sunu kanam te may ko ak wér ba li mu naalal sëriñ bi lépp moo ànd ko ak moom di ko ñaanal mbooleem kilifa yi diine ji ak fépp fu ñu mën a féete ci toolu lislaam bi di jël nuyoob daayira bi ak waa dëkk bi di ko teg ci loxol sëriñ Basiiru am na ñaari jëmm yu fi jote jaar ñoo xam ne kenn ku ci nekk waxtaan na ci sëriñ Saliou te ñi ñaar ñoo xam ne kenn ku ci nekk itam ci daaraam la nekkoon sëriñ Saliou day ko yaatu koo xam ne mën naa ne kenn umpalewu ko ndax ñu bari ci ñi fi teew jamonoonte nañu ak moom ku ci toogut ak moom gis nga ko ci télé bi mu wax nga dégg mbaa ku mu yar ñëw fi yow mu doon it ay xaaj niñ ko mën a waxee am na ci loo xam ne bëkk néeg ya nekk ci kër ga ñoo ci ëpp xam-xam ñëpp ndax ci kër ga lay xewe am na ci loo xamante ne ñan na ca daara ja ñoo ci ëpp xam-xam ñëpp ndax foofee lay xewe am loo xam ne itam mën nañ ne ñëpp ci bokk yam ku la ëpp xam-xam sëñ Saliou gën laa dégg la muy wax gën laa xam lam ca jublu te mooy li muy wax ci télé bi mbaa di ko wax ci màggal ndax nitu yàlla dana toll foo xamante ne ñépp lay waxal waaye nag ñay xam la muy wax danañu wuute ndax ab jataay mën naa xat ba la muy wax mu tënku ko te fekk mas na ko wax ci jenn daara wax ja gën a yaatu su boobaa yaatee ëpp xam-xam ka nga xamante ne ca télé ba rekk la ko gis walla ci jataay bu xat waxtaan wi nuy def itam ci li nu dund rekk te fekke ko ci yar bi mu doon yar ndax noonu ko sëñ Sari waxe yàlla defal nañu tawféex nekkoon nañu ak moom nekkoon ci ay loxoom itam daara ji ma njëkk a yóbbu mooy daaray xàbbaan ma nekk fa la ma fa doon liggéey itam mooy yar gone ya ak di leen toppatoo ànd ko ak mag ña fa nekk ginnaaw bi la ma doog a yóbbu xel koom fa laa nekk itam ba ni mu wujjee sunu borom subhanahu wa ba def fa ñaari at doog faa jóge nit nag fu mu def diir bu toll noonu tey magum jëmm la fay xew lu mu ñàkk-ñàkk ab seetlu danga ca am lum mu ca xam sëriñ bi radiyallahu taala anhu jëmm la joo xam ne digganteem ak ndaw mënees na ne lii teew rek sere la ci ndax koo xam ne ndaw ñi nga jamonoonteel ñoom ñëpp a defaru te ñu ci bëree bëri tooguñu ak yow kenn ku nekk xam na ne ña ngay xëy ci ñoom ak di gont ci ñoom ñooñee kenn ku nekk xam na ne dëgg-dëgg defaru danañu ko def tarbiya day lu jafe bari lool ñu ciy yëngu waaye moom day da daan wax ne ñi ko fi jiitu dañ ci daan barkeelu waaye moom la ko sëñ Touba sédde te yaakaar naa ko xool li mu tarbiya ak ni leen tarbiya loolu dana gën a firndewu ci yow ndax tarbiya laajul rekk nit ki takk ak der di liggéey kese loolu wenn xeet la ci tarbiya loolu bakkan lay tarbiya di ko defar waaye am na beneen xeetu tarbiya boo xam ne ruux lay defar am na beneen xeetu tarbiya boo xam ne ab xol lay defar am na beneen xeetu tarbiya boo xam ne jikko lay defar am na tarbiya boo xam ne am xel lay defar am ci tarbiya boo xam ne aw yaram lay defar tarbiya dafa yaatu lool Sëriñ Saliou radiyallahu taala anhu nag moom xeeti tarbiya yépp la doon boole ci ab dongoom ndax nit ki balaa mat sëkk day fekk waajtaay yi yàlla def ci moom yëpp waajtaay wu ci nekk ñu saytu ko ba jagle googa feeñ ci moom lépp daje ci moom ci lay doog a mate sëkk loolu moo taxoon ñëw yonente bi sallallahu alayhi wa moo taxoon a ñëw Serigne Touba radiyallahu taala anhu ñi mu yaroon itam ci yar boobu la leen yar ki nga xam ne tey mooy jàngale ci daara ji alquran ci jamonoy sëriñ bi suñ ko yóbboo ca tool ya da naan bay dong la man suñ ko daajloo danga naan ministre kepp la jàng suñ ko defarloo jaafiray téere danga naan uude képp la man suñ ko waaraateloo nga ne xam-xam képp la jàng su ngeen jëflantee danga gis ne jikko yu rafet ak roogu àgg ci yàlla ak xol bu laab lépp a ngi ci moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tam kazaalika ñi nga xamante ne ñoom la yar noonu la ñu melam saxaaba yi kenn ku ci nekk ci ñoom buñ demee ca xare ba da ngay jàpp ne xeex képp la ñu jàng suñ demee ca alxuraan ja da nga naan ñii alxuraan rekk la ñu jàng sëriñ bi ku a dem xelkom daa nga gis ne liggéey ba fa nekk dañ ci daan woo yoonu murit yépp ñu def fa ay fad yu bëree bëri te maanaam liggéey ba dana des léeg-léeg ñu def ko ba mu àgg waaye danañ fa def ab diir bu yàgg te liggéey boobee ña ko doon def dañ ko boole woon ak jàng alxuraan ak di ko jàngale ak a jàng xam-xam ak mbooleem lu ñuy def ci daara ñu boole ko ak liggéey boobee te ay gone lañuy doon kon di nga daal di xam ne li ma la wax lu firdewu la moom nag xeeti tarbiya yi yëpp la boole woon ndax tarbiya ki koy def euh, la ciy jiitu mooy nga xam doomu aadama lool bala ngaa tarbiya te xam doomu aadama googu du tekki rek maanaam xamu kaw nii dangay boole xam nit xàmmee xeeti nit ndax nit ñi dañoo bëri te bokkuñu am na ci ñoo xam ne saa yoo leen merloo dootoo am ci ñoom la nga bëgg am na ci ñoo xam ne saa yoo leen neexalee loo bëgg ci ñoom am ko am ci ñoo xam ne saa yoo leen jiitalee loo bëgg ci ñoom am ko am ci ñoo xam ne saa yoo leen desalee ginnaaw ñàkk nga leen ba faw kenn ku ci nekk ak ak xeetu gàllankoor ba mu am am na ñoo xam ne lii seen gàllankoor mooy bëgg àdduna am ci ñoo xam ne lii seen gàllankoor mooy bëgg siiw am ci ñoo xam ne lii seen gàllankoor mooy bëgg alal am ci ñoo xam ne lii seen gàllankoor mooy bëgg ay xarbaax bëgg ay kéemaan fu ñu toll ñu ngi lijjante nu ñuy def ba nit ñi naw leen ni ñuy def ba nit ñi gëm leen ni ñuy def ba nit ñi jàppe leen nituk yàlla yooyu tawat yëpp nag day bokk di daje ci doomu aadama léeg-léeg nga gis ci koo xam ne dana ci dajale lu bari te yooyu yëpp benn bu ci nekk dafa laaj paju boppam kon day mel ni kii faj te mooy kii tarbiya faw mu doon sëriñ bu mat sëkk ab sëriñ waaye ko xam doomu aadama nga xam ne bu jàkkaarloog yow ci baatin dana xam say tawat su ngeen jaxasoo ci saayir itam kasaalika dana xam say tawat sëriñ bi radiyallahu taala anhu jëmm la woon ju xamoon doomu aadama wax na ne mu gàtt xam-xam weesuwul nga toog ak nit ñetti minute te mënoo bind ci moom ab téere daana wax ne képp ku ko mas a su la xoolee ngay ñëw dina xam li nga koy wax te loolu daawu ko xamee ci baatin xam gum xam doomu aadama képp la kon kooku ku ne xam na ne wàllu tarbiya ku mu tarbiya manees na ne tarbiya bu mat sëkk la lay tarbiya te mooy ku xamoon doomu aadama la xamoon xeeti nit ñi kenn ku ci nekk fam lay jaar ba sax bu la daan jox ab dong di la ko yóbbuloo ca daara ja ngir féetale la ko dana la ja xamal loo xamante ne saa yoo demee looy gën di jëflante ak dongo ba di gën a xam fa nga koy jaar ndax lam la ca waxante diir bu gàtt lay toog ak ñoom waaye itam di nga doon koo xam ne du yàkkamti ku mën a muñ ku mën a e, xaar mooy tarbiya ndax bëraana tey koy tarbiya ba mu dem bay waaj a mat mu mujj doxe noo xamante ne fa ngeen di mujje mooy tàggoo Serigne Saliou ko mënoon a muñ ci ab dongo maanaam lu mel noon la daana jëflanteeg ab dongo ba yàlla dogal bis mu def fa loo xamante ne keneen ku ko defoon da nga koy génne sa daara waaye daraan wax ne kuy togg tey def matt kuy saxaar nga xem bi ndax la ngay togg dana ñor loolu daana ko wax am na benn xare bu mu mas di waxal ba ne ko boo munta toog ca daara ja nga wax ma ma yeewi la gone ga ne ko yeewi ma sëñ bi ne ko mën ngaa daldi kon ñibbi muy dem mu wax ña fa toogoon ne leen dab leen ko te ba mu xam ne maa ko dablu ndax kuy togg kat tey def matt gu saxar nga xem bi bu yàggee na ngay togg du ñor ñooñee dab ko di waxtaan ak moom ba gone ga dëkk nga xam ne yooyu daana ci jànkonteeg yoo xam ne moom lay muuñ ba ba ñuy mat lañu la lam leen bëggaloon waaye itam kuy tarbiya faw nga am ak ñeewante faw nga am ak ñeewante ñi ko xam ñëpp te jaxasoog moom xam nañ ne ku bëri woon yërmande la ba sëñ bi doon waxtaan fii muy sëñ Abdou Gora Mbaye dégg ngeen lool yi mu wax ci moom ci ne duma dem bàyyi leen loolu mu ci wax te loolu lépp yërmandee ma àggoon na ci yërmande foo xamante ne daawul nangu gone gu jooy fi wetam saa yoo ko defee ci wetam rek boo moytuwut jataay bi ñëpp dana leen yeewi am na ku fa mas toog ak moom di kilifa goo xamante ne ci njaboot gi la bokk gone yi bu toogee nii dañuy def seen yëfi gone di saagante ndax xam na ne buñ màggee bàyyi ko te it ab yaram moom lu ci nekk saa su nekk su waxtoo jotee rek la koy def kooko mel ni saagante bi ñuy saagante ci kanam sëñ bi da caa war a wax waaye ba mu leen gëddee ne leen yéen gën a yaradiku sëñ bi dana ko yaradi ko day weesuwut yar kuñ la loo wut loolee la ko daal di wax ndax musta nangu moom koo xamante ni bii rek benn gone ci kanamam wala mu doxeek moom noo xamante ne bii gone ga dana gis ne jataay bi xat na ci moom ndax ku bàyyi ndey bàyyi bàyyi te miinoon leen am na nu muy demee boo wut wut ci moom ndayam ak bàyyam du fa xaar la nga xamante ne bii moom ngay def ba yërmandeem àggoon na ci yoo yi nga xam ne dañ daan mat dañuy tonge di marte yoo yooyooyu daw ko dàq am na ko ko masalaaj man toog na ma moom nii gis ko loxo yi fees dell ki yoo ñi nga xam ne xam nañ ko xam nañ ne mbaaram ma dafa bari woon ay yoo lool néegi boppam yi itam kasaalika doonoon waaye du dàq aw yoo du ko rey toog naa fa bés gis ko nii mu toog loxo bi fees dell ak ay yoo mu di leen xool nii waaye dàqu leen am ko ko masa laaj ne ko yooyu yi nga xam ne ñoo lay tam xanaa dañ la dul matt mu ne ko ah kay mu ne ko damaa gis doo leen dàq mu ne ko wërsëg wi leen yàlla jox ci sama jëmm ji duma leen ko xañ ma ku dul xañ aw yoo wërsëg bi ko yàlla jox kenn ku nekk xam na ne doomu aadama kadaalika ko amoon yërmande la moo tax itam yàlla defal na ko tawféex ba ñi mu yar ñëpp kenn ku fa amee ci moom lu la naqari ba bàyyi ko jëlee sa bopp say bagage dem amutoon yii bokk na ci yi nga xam ne dana daje ci sëriñu tarbiya beneen bi ci des mooy xam xeeti gàllankoori ruux yi gàllankoor yi gàllankoor ruux bu ci nekk luñ koy saafaraa loolu moom jëru bu ci dugg kenn ku nekk xam na ne buñ nee jëmm ji sëñ tuubaay waajuram doy na sëkk ne wet googu dana ci am ak jagle ñaareel ba itam fekk na ci tarbiyeeg sëriñ bi lu bëree bëri ndax dund na ak mag ñoo ñi nga xam ne ñoo toppoon sëriñ bi radiyallahu taala anhu dund ak njabootu sëriñ bi mboolem ko fi mas a toog xalifa moo ànd ak yow sax xilaafa yàgg tarbe tarbiya ndax bi muy am fukki at ak juróom-ñeent ci la njëkk a samp daaray tarbiya di tarbiya daana wax ne kenn ku ci nekk ci yéen booba dongay la ko daan wax sa tool fa cay sax am ñax ak fa ko dul sax xam nga ko nga xam ne mën ngaa gëmm doxal sa bopp ba àgg foofe noonu itam ni laa leen xamee bu dul baati nitam di yàgg ci yàgg kon ku nekk xam na ne nit ki lu mu yàgg def ci lu toll noonu dana ci am xam-xam bu wér ceng gone yiñ ko daan yót itam di gone yoo xam ne gone yu wuute lañu ku ñëwaan ci daara ji te dugg ca biir jaxasoo ñoom da nga xam ne la ëpp ca gone ya daanaka yóbbu leen daara sax yellutoon di nga fa gis gone goo xam ne maanaam benn baat du ko mën a wax saa yu tàmbalee wax yuut yi tàmbalee xelleeku te noonu lay binde noonu lay bindoo te du tee dañ ko ko jox te du gàntu genn gone nga gis ci gone goo xam ne cër yi genn wet gi daanaka li ci ëpp day làggi genn wet gi képp mooy dund ci yaram wi nga gis fa gone goo xam ne buy dox ñaari tànk yi da leen di boole di diri faw mu jàppandu ci miir doo ko mën a dox dox goo xam ne dox gu jubla nga gis ci gone goo xam ne fu mu tëdd day nelaw foo ko yee bu jógee tëdd feneen dal di nelaw nga xam ne day mel ni tawat la juy nekk ci moom joo xamante ne bii fu mu nekk day nelaw di nga ci gis xeetu gone yoo xam ne dañuy amee ragal goo xam ne dangay xam ne lii doo ragalu kese soo ko ne woon kaay képp mu gaanu ay ay tànkam jàpp ne ne da nga ko rey balaa agsi boo ko ne xanaa du yow laay waxal mu samp am xelam daw loolu danga ko daan seetlu ci biir gone yi di ci gis gone yoo xam ne foo leen fekk ngànnaay la ñuy foye ñu ngi daas ay saañaay ñu ngi toj ay xotti butéel ñu ngi sot ay bant nga xam ne dangay xam ne gone gii suñ ko bàyyi nii su màggee mën naa doon ab defkatub jëya wala yu demee noonu nga gis gone goo xam ne saa yoo ko dóoree ak lu mu doon doon gone dana la saaga boo ko doon dóor ba di ko rey itam maanaam saa yoo ko bàyyee mu jaaraat la fam la jaaroon nga gis ci xeeti gone yu bëree bëri yoo xam ne kenn ku ci nekk bokkut ak morom jote ñoo ñëpp lañ ko doon boole di ko jox nga gis ci gone goo xam ne du toog ñetti minit wala fukki minutes ak juróom te daanu wut di say te ñooñ ñëpp kenn ku ci nekk dañ ko daan indil te daana ko xam te daawu ci delloo genn gone ñooñu ñoom la sëriñ bi dajale woon radiyallahu taala di leen tarbiya ba yàlla defal ko ci tawféex da nga ci gis koo xam ne ci ñii ma wax day jekki-jekki dox gi di jub dox gi di jub ba yàgg mooy dox ni nga xam ne tey jii noonu la ñëpp di doxee te doo gis fu mu ko bindaleb téere doo gis fu mu ko joxe saafara doo gis fu ko masa wooloo doo gis fuñ ko yóbboo ci hôpital dangay jekki-jekki rek gis muy tàmbali di tane di tane di tane ba yàgg mu dañ ñooñu itam ma wax ñëpp kenn ku ci nekk loolu danaan dañe foofu ci moom nga gis ne kon boo amee seetlu da nga xam ne ci biiru tarbiyaam tarbiya aw yaram ci la bokkoon ndax loolu bokkut ak tarbiya ak ruu bokkut ak tarbiya am xel bokkut ak tarbiya am xol waaye danaan tarbiya aw yaram te mooy defar nit ki ba jëmm ji attan li nga xamante ni bii mooy liggéeyu kër gi te muy liggéey sëñ tubaab bi nga xamante ne moom la leen di toqee te muy liggéey boo xam ne bu noppee lépp ci lislaam lay dem ndax ci la ñuy tabax jumaa ji ci la ñuy jënd gasoil bi dem ci forage dëkk bi jullit ñi di ci naan ci lay dimbale itam lislaam ji ñi aajowoo ay jàkka ak ñi aajowoo ay jumaa yooyu bokk na ci lañ naan bàyyi xel ko moo naan tax muy woo nit ñi kenn ku ci nekk saw ñaq dem ca ngir bu ëllëgee yomal xiyam yàlla fay la nga gis ne xeeti gone yooyu kenn ku ci nekk daana la tarbay ci lu demee noonu waaye daawu ci yem itam ci biir tarbiya ak yaram googu daana ci boole pajum docteur ñi dem xel xelkom dem nañ Touba xelkom Touba koom tabax na fa poste de santé teg fa ab docteur ak njàppandal boolewul leen benn docteur boo xam ne docteur Sarr lañ ko wax nga xam ne daan dem ci daara yi di dem ci daara yi bu dee daaray xabaan am na ay dongo yoo xam ne jëloon na leen fa yabal leen ñu jàngi faj ba nga xamante ne yàlla dogal na xeeti tawat yu yemamaay yi bu ci nekk danañ ko mën a saytu man mii bokkoon naa ci ñooñee nga xamante ne ñoom la yabaloon dëkk bi ñuy wax Kër Malamine Ndiaye ku miin tundu xabaan da xam dëkk bi ñuy wax Kër Malamine soo jógee xaban jëm campement ngeekoox yoonu suuf yi ngay jël di nga jaar ci digg dëkkub Kër Malamine bi soo fa jógee génn ji teen tubaab dem fi nga xamante ne mooy campement euh, dëkk boobu am na docteur bu fa nekkoon jamono boobu bu ñu koy wax docteur Ndiaye doon nañ fa jàng yi mu ñuy jàngal nan la ñuy traité ku siburu ba siburu si du ko sonal biir buy daw ba ci RVO yi nga xam ne moom la ñuy jox xale yi nga xam ne dañoo déshydraté nga xam ne dañoo seen biir yi day daw ba ñu néew kattan man daanaa ko defar da xamoon naa nan lay natt ci suukar ak ci xorom ginnaaw boo tàngalee ndox mi ba mënoon ko defar ginnaaw bi laa ko fàtte ba ma jógee ci yooye nga xam ne yoratuma lu demee noonu ci laa ko fàtte pikiir kama àndaloon nga xam ne ñun ñaar ñoo ko doon jàngandoo fii may waxee infirmier la te ci daara ji la jógee di def ay concours ba yàlla dogal na dëkk bi ñuy wax euh, euh, ci wetu xabaan dëkk bi Kër Masuka ay américain defoon nañ fa benn euh, fajukaay moom lañ fa tegoon affecté ko fa jox ko oto ak lépp te ci daara ji la génne ci ci loolu ci la jaare maa ngi moom formation boobu ñu doon def ci la jaar ndax moom dafa jàngoon tubaab bi mu noppee di wéyal ay concours ak i gëstoom ba yàlla defal ko lool te dara waralu ko woon lu dul doon toppatoo xale yi noonu la doon sonn itam ci dund bi nga xam ne moom la gone yi di dunde ndax aw yaram bala nga ko faj bokk na ci la nga koy faje lekk gu baax naan set ba noppi am paj doog caa tege lekk gi itam lekk gi gën ci lekk yi moom la daan topp toolu ay cere dugub lenn lu ko gën ci yaram amul fenn fu nekk daana ko fi yónnee ba moo sabab tey jii cere yi nga xam ne moom la ñuy indi fii ci dëkk bi ñu di ko def dëkk yi wër xabaan muy tund yooyu bu dee daara jama nekkoon su nawet bi wàccee dëkk bu ci nekk da nga daan togg ay reer di fa indi bokkut ak li nga xam ne daf koy defarloo moom ci cere bàyyi ko ci daara ji ñu di ko jëfandikoo laax bi itam da ko fonkoon lool ndax baax ku mu baaxoon ci aw yaram ka ndawal daana ci joxe ayu bés bu nekk danañ ko lekk ñaari yoon ci daara ji am na waa kër Seex beejoo yi nga xam ne ñoo nekkoon Thiès ku ñuy wax sëñ Mortale Sylla jiitalewoon moom itam daana togg ay añ yu mel noonu mu dikk ko indiloo ci diggante daaray xabaan ak daaray got daana ko defloo Serigne Saliou Touré mi ko nekkaloon Thiès daana ko defloo itam sañ Mbay mi nekk Mbuur bokkut ak yi nga xam ne is bu tarxee ñoo koy togg di ko yóbbu ci yeneen yi ci des ak yeneen daayira yu muy jox ay xaalis di leen toggaloo di leen ko yóbbu ci daara yi te lépp bëggoon ñu am ak wér moo ko waraloon te it daara yi liñ fa daan dunde amoon na boo demoon xelkoom amoon na fa benn néeg boo xam ne lu mel ni néeg la boo xam ne day denc ak ndawal moo ëpp fii nu toog nga xam ne ndawalu daara yëpp dañ ko fa daan def waaye is bu tarxee la daan jox ñu koy dem di ko wër di ko séddale ay bis bu nekk danañ ko ci séddale ci daara yi lu man ñaari yoon waa amoon na jën yoo xamante ne daf ko fa daan jënd am na ci jën yoo xam ne man mii bu ma ko yëkkati woon faaw ñu jàppale ma ko ma dog koo mën a attan dañ ko daan indi ci daara yi nga xam ne yooyu yëpp daf ci daan sonn di ko fa indi ay vitamine polyvitamine yi muy doom yi nga xam ne day tax sa sa sa yaram maanaam yu bëree bëri bu ko manqué mu mën ko caa def yooyu yëpp dañ ko daan indi ci daara ji di ko joxe mbalaan yi itam danaan seen mbalaan yu dëppoo ak wér-gi-yaram yoo xamante ni bii bu tàngee maanaa di nga ko mën a sàngoo te tàngoor wi du ëpp bu sedd itam ko nonu mu di ko fi indi col gi nga xam ne moom lay xotti itam di ko fi indi saa su nekk dana seet col gi méngoo ak sedd bi mu wut ko col gi méngoo ako tàngoor kasaalika mu wut ko ak col goo xam ne su bisub iid jotoon moom ngay sol ñetti xotti yooyu da ko saxalaloon daaram yépp te loolu bokk na ci li nga xam ne mooy wéral aw yaram aw yaram bokk na ci li koy wéral mooy bu sedd jotee nga sol yére yu méngoo yére sedd bu tàngoor jotee nga sol yére yu méngoo ak yëre tàngoor ndax ngelaw li dafa am lu muy def ci derub yaram loolu ñu jàng médecine ñoo ma ko gën a xam du sama domaine waaye lii bokk na ci li nga xam ne doon na ko def ci biir yar bi daara ju ci nekk itam ci daaraam yi bu dee daara yi gën a néew saakub ceeb bët bu set danañ ko sóor saakub ceeb bët bu set danañ ko sóor ku nekk xam na ne daara joo xamante ne ñetti téeméeri nit lañ ak fukk ak ñett maanaam seenu dund bis dana mat saakub ceeb te kenn mës a dégg mu laajte ko wala mu wax fenn na nañ ko ci dimbale kon noonu la doon sonn ci yaramu dongo yi ci faj ak set gi saabu yi am na jamono boo xam ne daara ju nekk juróom-ñetti fukki goro si saabu la lay jox muy sa saabu yi at ginnaaw bu mu fa indee dundub at ak suukar soo xamante ne kasaalika noonu lay toll waaye saabu yi daana jox daara ju nekk saabu yoo xam ne atum lëmm danañ ci man di fóot di ci sangu di ci def lépp ba ba at mi jeex ñu doog a séddalewaat te du manqué paj mi itam garab yi noonu la ko daan defee daara joo dem am na kees goo xamante ne dañ ko ci def nañ ci xeete garab yi nga xam ne daanaka moom la ñuy ëpp lu ñuy jëfandikoo muy garab yuy faj saan garab yi faj yaram wu tàng garab yi li ñuy wax carbone nga xam ne biir buy metti boo wannee aw weñ wala nga lekk lu la jigut wala yu mel noonu yooyu yëpp da ko daan fàggu di ko indi ci daara ji te lépp rek ngir ñu wér noonu itam la doon sonn ci tarbiya xeli dongo yi ndax nit ki bu fekkee dafa amug wér te am xelam demeewut ala kulli xaalin faaw mu doon ab coono ci ki ko yor bu ñibbee seen kër itam faaw mu sonal seeni borom noonu la doon sonn ci xel yi di leen jàngal ndax am xel bokk na ci di koy tarbee muy jàngal borom xeeti jàng yëpp dañ ko fa daan jàng xeeti téere yëpp dañ ko fa daan man nii bokk naa ci ñi nga xam ne li ma jàng ci ay téere xam-xam yëpp fa laa ko jànge ca biir daara ja te a ko jàngal itam fa la ko jàngee nga xam ne mbooleem xam-xam bu yee nit danga koy jàngale ci biir niki noonu itam di jaxase dongo yi léeg mu toog ba yàgg mu toxal ñenn yóbbu ci jeneen daara jël ñeneen indi fa ñetti téeméeri nit ak fukk ñett fu ñu dëkk di saafonte ku dëkk Dakar de ci ku dëkk Kaolack nekk ci région bu nekk am ñu fa ne di ci gis sax ñoo xam ne dem nañu Italie nekk fa nar a yàqu seen i waajur jël leen delloo si leen ci daara ji nga gis ci ku jàng français ba am brevet xëy xëy aal dugg ko mu ne day tarbiyoo ji nga gis ci ku jàng lu nekk da ko fa gis di nga ci gis ku mën a tëgg gis ci ku xeet wu ne da nga ko fa gis ñooñu seenu jaxasoo dana dolli am xel faw boo fa nekkee sama xel dana rëy rawatina nag nga wéet ci àll boo xam ne amul lenn lu lay tee mën a xalaat gor nañ garab yépp nga xam ne déjjati nañ ko doo dégg picc mu sap doo fa dégg oto buy riir soo toogoon di xalaat ci dara mën nga cee def fan fanweeri minute yoo xam ne sam xel dara du ko fëkk foofa ko fa nekk sam xel du gàtt ñaareel ba saa yu ñëwee ci daar ji day toog ak gone yi di waxtaan ak ñoom léeg-léeg mu jékki-jékki xool dara laaj ko kenn ba xam fa sam xel toll mas naa cee li fii gone gu ko mas a dénk euh, gone goo xam ne dafa mas a ñëw fekk ko fi mu toog ci campagne bi muy gone gan mu dugal fa ak gaalam goo xam ne miskit da nekk def ci fukki paqueti miskit yu ñu ko joxoon bi mu toogee ba yàgg na ca gone yi di fo xelam nekk ci miskin mi mu ñëw rocc gaal gi bi mu ko ubbee gis ne am na ci paquetu miskit bu ci manqué mu kobas ko ne ko maam day sama miskit mi ma dugaloon fii dafa manqué sëñ bi ne ko ñaata la woon gis ne ñaata la la ko njëkk ngir ne xool ba xam li muy wax am na fu mu ko teg mu ne ko dix paket la woon gone gi daa xëy na daa jàngoon tubaab doog faa ñëw sëñ bi ne ko ñaata lañ ci jël mu ne ko jël nañ ci un mu ne ko mu des ñaata mu ne ko mu des neuf mu daan daal di diri gaal gi ne ko mi ngi nii sëñ bi xool ko ne ko ah, man di jëluma ko mu ne ko sa ron lal bii de fi laa ko dencoon mu ne ko ba nga ko fi dencee itam dénkoo ma ko am ko fa nekk kobas gone gi ngeen mu noppi mu fetta su ko ne ko bàyyi ko ndax day bëgg yeesam xel ba looy def nga xam fi nga koy teg xale bi ne teg ndax xam na ne dénk ku ko woon yee na ko foofu mu daal ne ko wax kooka ne ko demal ci biir nga indi fa paquetu miskit mu daal di ñëw jox ko sëñ bi sëñ bi jox ko ko ne ko lii nag du lu ma la fayee ndax jëluma sa miskit dama la ko may mu daal di koy jël dugal ci mën ne ko bu ëllëgee gaal boo ko te sa gaal gi sax yow tëjoo ko xombi woo ko gaal boo ko dee denc ci ran lalub jàmbur da nga koy dénk borom wala nga tëj ko nga gis ne noonu la doon jaxasoo ak ñoom di leen yee ci seen xel di natt seen xel fi mu toll kenn ku ci nekk ci ñoom mu di la fa fekk di wàcc ba tolloo ak yow ngir defar sam xel am na ci boo xam ne gi eh, eh, ku ñu wax ndongo daraame ñi nekkoon ci daara ji xam nañ ko ci chauffeur yi kër gi la woon ndax sëñ bi jàngalekat yi am na ci ñoo xam ne dañ dama mënoon a dawal léeg-léeg daf leen di joxe oto ñuy yóbbu dund yi moom la doon rendiloo ab gàtt bi mu ko ne demal lewetal ko fekk ay gone toog fa mu woowaat ko mu ñëw mu ne ko ndax xam nga nu ñuy rendee fekk booba gone yi la ko bëgg a jàngal ndax kooka jàng na te mag la ndax man mii mooma mag mu ne ko déedéet ndax sëriñ bi ñi ko xam saa su la waxee dara te nga te ngay ku ko xam da nga naa ko déedéet ndax dana la ca wax loo xamut mu ne ko booy rendi la ngay rendi danga koy tër fekk ngànnaay la ñaw nga dàkk digg baat ba wax bismillah te gaawal sa loxo ndax nga noppal li ngay rendi muy ni ñu baaxoo rendee ba mu ko ko waxee ba noppi daa daal di wax gone yee ne leen ku ci mën a jaaraat ci li ma waxoon ma jox la ab koko fekk koko ju bari lañ teg foofu ci wetam gone gu ci jaar mu yëkkatee ab kooko jox la ba yàgg am gone gu ko ne fekk boobu sëñ bi dana ko bu dee ginaar wala xar wala bëy noonu lañ koy rendee wala aw nag am ci gone gu ko kobos ne ko bu dee gileem nag duñ koy rendee mu ne ko ba saa yoo amee gileem da nga xam nuñ koy rendee ndax na ne su ko waxee gileem itam du tax mu xam nuñ koy rendee ndax gileem bëriwul Sénégal rawatina jamono booba waaye day wax ak nit ki fi mu toll nga xam ne noonu la doon fekk see gone yi di yar seenum xel ci diggante jàng ak di leen jaxase ñuy toog ak ñuy tuxu di jóge ci ji daara dem ci jee daara ak su ñëwee di toog ak ñoom di waxtaan ak ñoom loo koy wax itam da déglu ba nga wax ba noppi mu tontu la ca la nga xamante ne bii moom la lay tontu euh, noonu la itam la doon yare seeni jikko ndax nit ki bu fekkente ne bii euh, yar nga aw yaramam yar am xelam te amul jikko ju rafet kenn ku nekk xam na ne dana sonn dana sonal boppam ndax lu ko xelam jox Ah, jig ko nekku fa faw mu def ko rawatina nag mu am kàttan dolli ci te àll bi ñu nekkoon nekkoon nañ fa ak yeneen eh, xeet yoo xam ne du jar ma leen tudd ay sàmm lañu waaye ñu néewoon ak muñ lañu ba noppi itam ku ne xam na ne ab sàmm akub dongo ñu nekkee faw ñuy jote ndax jur gi danañuy dugg ci biir tool yi te am na ci loo xam ne boo ko fekkee yàq ga dana toll fenn fi ba doo ko mën a muñ waaye yàlla dogal na Serigne Saliou nekk na fi ba nim fi bàyyeekoo mu see suta sàmm bu fa lor ab dongo walla mu gaañ fa ab dongo mbaa mu def fa ab dongo lu ñuy wax te dongo yi daanañ jaxasoo ak ñoom di dem ci seen ngédd yi di fa ñaani soow daanañ jaxasoo ak ñoom ci àll bi léeg ngay gori looy defaree am mbaar daje ceeg kenn léeg ngay doxantu daje ceeg kenn mu yore nay waaye du ngeen jote dara ndax jikko jiñ yare woon dongo yi dafa taxoon ba seen i jikko rafet ba ñu mën a jëflante ba am na ci dongo yoo xam ne am nañ fay turandooy pël am nañ fay turandoo ci séréer si ñoo xamante ne bi dañuy mujj yëkkati ñooña jox leen leen bi ñu yeewi ko ñu yóbbaale leen mbar ku nekk xam na ko ci ni meloon toll nay jamono képp ku fay dem te yore ngànnaay ma yi buñ ko gisee ak yow danañ ko jàpp pël yi dañ naan suul seen jaas yi ci àll bi ndax gorante bu fa bari woon ak faat guñ faraan faat da nga daan seen dongo bu jiital ay nag di waxambaane muy ñaari dongo dem jaay ko fa muy xaalis bu bëri ci kanam jula yëpp nga daa takkaat sa sareet di ñibbi te kenn du la kar ci yoon wi nangu ko te loolu jëflante bu rafet moo taxante te du ñu yore ay ngànnaay man mii dem naa fi mbar genn guddi goo xam ne maa ngi fa wàcc diggante huit jàpp neuf heures booba maa ngi ak ñaari portable ci sama poos sama beneen poos bi ci def fukki junneeg juróom a ngi fi ma jaar ay selaan romb naa ko fa nga xam ne daanaka xaw naa nekk ci ay ginnaaw yu kër la waaye daanaka ab àll la ma daje fa ak benn waay boo xam ne ab kiloot la sol yore jaasi ju weex tàll dikk na bët ak si ci man xool ma daldi wàññeekuwaat taxawaat fa mu taxawoon xaw ma nag day dogaale xaw ma dafa am kum fay xaar